asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon ñu fas ne dikkee kàddu yi sëriñ Fallu Jumaada ay leeral yu am solo yu mu def ci al ibaadatu wal xidma ci yëngu-yëngu yi nga xamante moom lañ doon waxtaane fan yi kon ñu bokk déglu ko bismillah rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki taalibe yi bokki julli yi ñoo ngi leen di nuy yéen ñëpp te di leen sant di leen gërëm tey it di yëkkati nuyoo bi jëmee ko ci yéen nuyoo boo xam ne bii nag naqaru xol rek la àndal ci jëf ju bon ji nga xam ne lëmbaajee na réew mi fan yii te nit ñu bon def ko ndax fii ay jullit a fi nekk wax nañ ni quatre-vingt-quinze pour cent ñoo fi nekk ci ay jullit ñooñu nag. lu bon waaye bon bon war leen a bàyyi xel ci lépp looy def ak lépp looy taxaw rawatina nag yow mi nga xam ne yow lañ koy def loo ñoom ñoo la fa yóbbu nga wax ne boo demee ñoom nga fay nekkal nga dem baag wor woor yu toll nii yi wor kenn mosu ko dégg ndax mbir la moo xam ne ñu baax ñëpp jàppoon nañ ne boo àggee assemblée baat ak tontu lay doon bu àggee rek ñu daal di koy jàllale ndax loolu loolu moo waroon a am ndax réew mi réewum diine la réew la moo xam ne ay mag a takk woon jaay seen lépp. ngir taxawal diine ba ba diine taxaw ba bañ jot ci nii tey ñoom ña fa nekk ñépp seeni baay ak seeni maam ñooñaa leen fàggul lañu am ba tax tey ñu doon liñ doon ñu nekk foofee waroon faa taxawal diine ji tey ñu wàññee ko nag doon nooni diine yi nga xam ne ñoo koy xeex loolu nag mbir la moo xam ne eh, tegu na suñ kaw waaye bi mu tegoo suñ kaw nag nun nun noo ko nangu ndax nag nun noo nangu lu dikk rek ñu bàyyi mu jàll xam ne bu fekkee am na ñu ñemee taxaw fii naan eh, Sénégal du réew du du du réewum jullit xam nga loolu loolu wax ju ko gën a ñaaw te gën koo bon amut te koy wax naa te koy wax moom ab jullit la bàyyam ab jullit la maam ay jullit la ci ci ci ci ci jullit la la la la nàmpe ba ba ba màgg kon moom njullitam googee moo du dëgg waaye lislaam Sénégal moom réewum jullit rek la loi bii fi nekk loi la yoo xam ne tubaab bi ñoo ko fi teg dong jógewut ci yàlla jógewut fi kenn kon li njëkk waxuma homosexualité bi waaye laïcité bi nga xam ne moo gàllankoor l'islam ba l'islam mënut a am baat laïcité boobu laa bëggoon ñu taxaw ci maanaam mu mu jóge fi ndax l'islam boo amoon baat ci assemblée am na loolu du ci du fi am li nag jàll na waaye noonu noo ko waajalut ñoom de waroon nañu ko bu yàgg waxoon nan nu ko bu yàgg lan nu ko waxoon de ndax keroog ba fi Obama ñëwee de keroog ba ma sal Macky Sall waxee baagal dama leen déglu leen pour la moment la wax de baat boobu mu wax nag bu tuuti la waaye yéen a ngi koy reetaan waaye dana am lu mu indi de tey nag gis nga ko gis nga ko nii yëf yaa ngi nii teew na bi nga xamante ne bii mi ngi watelu fii référendum ba def ca nouveau droit ci biir laa leen nouveau droit yu xalaat leen ko càmbaraat leen ko am na lu ne ci biir de ñu bàyyi mu jàll tey mi ngi noonu bi nga xamante ne bii ñu ngi def ñu ngi ñu ngi ñu ngi def code la presse orientation sexuelle ma ngi ci biir may ne naa ah, ab a ngi nii boo xam ne de seetlu leen ko de waaye am na lu luñ jublu ci loolu de. ndax góor ak jigéen doo nga fi nekk kon bu ñu waxee orientation am na leen luñ jublu yooyu yëpp bàyyiwuñ ci xel ba yëf yi nag agsi na tëkkat ne jon ne ñi ngi nii nag war nañu seen bopp xam na ne ñu nekkaluñu nekkaluñu fa keneen lañ fa nekkal kon nag boobaa nun nañu am fayda ju toll nag teg fa ñoo xam ne ñooñu fay nekkal ah sëriñ bi moom li mu war a wax wax na ko nee na jullit bu nekk nag war ngaa def li sa kàttan ba lépp loo xam ne bii luy gàllankoor islam la ta nga mën ci dara la nga mën nga def ko kon nag ñoo ci des niñ ci dese nag mooy nañ nañ nañ taxaw maire yi nga xam ne maanaam ñi ngi wate maire boo ci xam ne ab député la ñu daañu koy ñu sanctionné ko ci saa si ci saa si rek suñ ci jógee législative moo ci topp maanaam député yi bu ñu accès képp koo xam ne bokkoon nga ci euh, assemblée bi ñu ñu ñu sanctionné loolu lu jàpp loolu lu lu mën a jàpp ne te mën nañ ko nag mën nañ ko ginnaaw carte koy def mën nañ ko nag su ko defee ñu tànn ñoo xam ne bii sëñ bi boo léegi du nu wor ñu dem ci assemblée ba bu njëkkatee loo xam day lor l'islam ñu ne déet du ci dal ndax wax ñuy wax naan naan nan réew mi ñu bari dañ fee nekk ñu bari dañ fee nekk dëgg la waaye quatre-vingt-quinze pour cent yi ay jullit lañ te ñoom lii ñuy wate nii lii ñuy wate nii ku ëppale nit benn nit rek daal di daal di daal wéyal say àtte lu tax nag maanaam nun quatre-vingt-quinze pour cent ñu ñu bëgg ñoo gàllankoor rek cinq pour cent yi ci cinq pour cent yooyu sax d'accorduñ ci lii lii lislaam d'accordu ci waaye ak nit sax d'accordu ci kon nag moo sañoon daal nun danañ takkuwaat carte yi ñu amee ñu daal di ci ni niñ ci mën a falee ni lañ ci mën a follee mboolem koo xam ne bokkoon nga ci législative bi ndax fi ni na nga xam ne kat maanaam ñëpp a ko bokk nag maanaam euh, maanaam pouvoir bi ak ak ak ak ak opposition bi ñoo ci ànd dina gis nga opposition bi déggoo kenn moo lay xamal ne ñoom ñoo ñu ne ñu néew nga ci dégg mbooleem ñi nga ci déggut ñëpp xam nga ne bu ñu jotoon ci pouvoir bi itam noonu la def kon nañ taxawaat takkaat suñ digg boolewaat ñu julli yi suñ bopp te fas yéene nag réew mii réewu lislaam la ñu fas yéene nag lislaam am fi baat di am lu muy bañ di am lu muy bëgg waaye ñu di la jiital nii rek say kilifa amuñ baat yow amoo baat lépp loo bëgg bu leen neexul ñu teg ko fee ba noppi bu ëllëgee buñ soxlaa ñëw ci yow loolu dafa mat a seetaat bu baax loolu dafa mat a seetaat bu baax man de lii danaa ko àgg ba ca sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy kilifa gi danaa àgg ba ca moom nii laa koy waxee bu ko defee nag jullit yépp itam ñu ànd ñu ànd mas ñu àndandoo taxaw ko ah, yéen yéen yéen yéen yéen député yi ragaleen yàlla te xam ngeen de te de lii de képp koo xam ne kii te lii de képp koo xam ne kii nekk nga ci ba tëral luwaay yi yàlla dogal nga wàcc luwaay yi nekk fi di dox ba ba addunay tukki bàkkaar bi du la teggi ba ba ngay tàbbi sa na leen leer nañ am na loo xam ne lii ab saleer jaru ko am na loo xam ne bii dara jaru ko ngor fekkiwu ko diine fekkiwu ko lii lu bon la lu bon la te du baax mukk te it nag noo ngi ñaan yàlla ci barkeb Sëriñ Tuubaa mboolem koo xam ne kii maanaam bokk nga ci lii yàlla na yàlla toroxal la wan la wan wan la lu bon li nga def ci adduna bi bala nga fee génne ndax ña ko daan def de ña ko ña ko daan def ba tax ba tax lislaam di ko aaye de ñooñu de ci adduna la képp koo xam ne ngi bokk nga ci wala nga bokk ci ñi ñi leen di jàppale nag toroxtaane joojee noo ngi ñaan ci barkib Sëñ yàlla yàlla teg la ko ci adduna ba mu wóor ne li nga doon def lu bon la lii de ab sareel jëru ko kon nag noo ngi woo jullit yépp ñu àndandoo mànkoo teg nekk nekk benn fas yéene taxawal lislaam taxawal lislaam nag laïcité bi ñu génne ko fi ba bu ëllëgee ci biir lislaam man a am baat ci nguur gi ba ba waxuma laa am ci baat sax mais dem ba nekk ca ca bopp nguur ga ndax nag maanaam ñii fi nekk ay tubaab doo nga leen yar ñu la mën a wax la tubaab yi gëm lañ gëm la ñuy def la ñuy def kooku nag ku ko xam jàpp ne nag maanaam euh, daañ la defal lu baax da ngaa xamul rek ndax ñoom gis nga seeni wor bis bu set buñ xëyee wor la luñ la wax duñ ko def lu ñuy def duñ ko wax kon mi ngi nii kon loolu ñu naan président nee na li feeg maa ngi fii nekk li feeg maa ngi fii nekk du fi am waaye dafiy jóge nag. bu fi jógee kon kan mooy nekk gannaawam su fekkee bëgg na lu baax kay ginnaaw mi ngi fi nekk am na kàttan ji na ko na ko na ko na ko def ni ko jullit yi bëgg loolu mooy dëgg su ko defut bu ëllëgee si biir moom ñoom ñooy bàkk bokk bàkkaar bi ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi ñaanal ñëpp di waar ñëpp ñu takkuwaat àndandoo xeexal diine ndax diine gi noonu dong noo koy xeexal lislaam li mu war a wax na ko li mu war a xam xam la ko li muy digle digle na ko li muy tere tere na ko nun ñoo ci ñoo ci des sëñ Tuubaa nag dafa waxoon ne قلت وقد حرم ربنا على كل مكلف على ما نقل فعلا بغير حلم حكم سري فيه فسنس دليل قطعي Sëriñ Tuubaa nee na bépp loi bu ñu lay wate loo te xamoo li mu doon lépp ak lépp looy def rek yemut ci rek lépp looy def te xamoo lu ca lislaam àtte neena na nee na boo nee na nee na boo ko defee def nga ko ci ak njuumte tey danga ko rëccu kon nun nañuy taxaw ci mbir yi ba mu leer ci ñun bu leeree ci ñun bu ñu waree bañ ñu bañ bu ñu waree nangu nu nangu loolu nag noo koy defal suñu bopp kenn du ko defal benn sëriñ du génn du ñu ko defal sëriñ si li war a wax nañ ko fa ñu war a taxaw taxaw nañ ko la ñu war a digle ñu ngi koy digle li ñu tere ñu ngi koy tere nun noo ci des buñ ko jëfandikoo ni nga xam ne la ñu ko digalee de lii gouvernement bi bëgg du am te bu ëllëgee itam euh, bu njëkkatee lu mel ni daañ ci bàyyi xel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu